ليليا وجا وانزلا بتواوني تواوان فيها اليمن للمطيابد خليل يا عيا وانزلا بالتواوان السلام عليكم بوكي سنغال السلام عليكم بوكي ادنبي ñun waa N-Man TV ñu ngi fii tey ci marché Ocass ñu ngeen ko xam ci marché Ngelaw ngir waaj bis bi nga xamante ni mooy bis bi nga xam mooy burdu bi nga xam moom la fi daa def at mu nekk mu doon burdu boo xamante ni nag ki ko ki ko def mooy Alaaji Cheikh Tidiane Ndiaye ànd ko waa marché Ocass yëpp bu ko defee tey jii danoo ñëwoon ngi yëgal ko waa adduna bi burdu boobu nag yàgg naa am ci marché bi tey ji bu ñu demee tey jii ba am ndigal muy jóge Tiwaawan grâce à waa marché bi nga xamante ne ñoo ci jàpp ñoo ci doon taxaw ñu toog ak ki nga xamante nag yàlla dogal na may président ak ki xam moo jiite burdu bi yëpp mu Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye grand Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ziyaara. maa ngi lay fay di la balu àq di la baal. yàlla nañu yàlla di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole jégal. amiin yaa rabbal alamin dañuy def burdu. at mu nekk ñu yàgg ko def ci marché bi fii ci marché Ocass ñu gën ko xam ci marché ngelaw te ji ay Aïnoumane TV ñëw ngir mën a jël si avant première bi ak yëgale burdu bi waa waa adduna bi yëpp nag ñu doon laaj burdu boobu nan ngeen ko taxawee ak kañ koy taxawal asalaamaaleykum wa rahmatullah Mouhamed maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax waaw laaj nga laaj bu am solo parce que at mu jot dañuy organiser fii ci marché bi marché Ocass ñu koy wax marché ngelaw euh, ñu koy def at mu jot ren nag ñu ngi ko jàpp ci le 19 mu doon euh, talaata bii di ñëw incha allahu rabbi ñu koy defee ci ndigalu Serigne Babacar Sy Mbaye Mansour xalifa général euh, El Hadj Abdou Fati Niang doon ki nga xam ne moom moo ñu jiite fii ñu topp ci ginnaawam ñu koy waajal nag talaata bii di ñëw incha allahu rabbi talaata la burdu bi nga war koo ànd ak waa marché Ocass ak ñi nga nekkal ci waa marché bi yëpp nag waaye tey ji waa Enemane TV bu la teewee bu ñëwee teew ngir nga yëgle burdu bi am nañ droit ñu laaj la burdu bi nan nga ko tëralee ak nan lay doxee. waaw burdu bi niñ koo tëralee.

programme gàmmu gi moom lañ ciy waxtaanee muy dunduk Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñoo ñuy envoyé ku fi ñëw ñu koy wax euh, El Hadj Mansour Diallo euh, moo fi teewal waa Tiwaawan waaw bu ñu euh, defee waxtaan bi ba pare après nag bu ñu jullee timis ba pare ci lañuy ñuy doog a jàng burdu bi burdu bi nag ñi koy jàng mooy waa burdu populaire bi ñi nga xamante ne ñooy def burdu bi ci stade ñoom ñooy jàng burdu boobu noonu daal lañ ko tëralee doxalee ko noonu Samb. suma déggé manam code burdu bi dafa aju ci aju ko ko burdu populaire bi nga xamante ñu ngi koy ci stade bi mu doon la 23 mu doon avant première burdu yi ndax loolay def burdu quartier yi doog dem ci stade ba burdu populaire mi ngi tombé samedi le 23 septembre fi ci stade Caroline fay bu Mbour suma déggé déggee dafa mel burdu bi kon dañ ko tek ci loxo wa burdu populaire ñoy yor ñoo yor wàllu programme bi ni muy doxee waaye waaye organisation bi wa marché Ocass ñokoy def. waaw waa burdu populaire ñoom ñoo ci affaire organisation bi. parce que ñoom ñoo ñuy envoyé fii euh, seen i ndaw ñu ñëw fii teew yore wàllu organisation bi ba de benn débordement du ci am parce que soo gisee loolu ñu koy doxalee noonu mooy ndigal lu jóge Tiwaawoon la ndax yàlla dafa dogal burdu bi am ci marché Ocass fii dafa doon burdu bi nga xamante ne dañ ko reconnaître au niveau national ñaari burdu la yoo nga xamante ne moom la ñu reconnaître fii à Mbour muy burdu populaire bi am ci stade bi ak burdu marché Ocass bi ñaari burdu yooyu moom lañ fi reconnaître moo tax ñoom euh, bu ñu organiser bourde bi dañuy envoyé benn superviseur koo xam ne day ñëw superviser bourde bi pour xool ndax am na débordement wala amul débordement euh, encore euh, comme ni ma ko waxee woon rek ñoo ñu yónnee koo xamante ne aussi mooy def waxtaan bi yàlla dimbale nañu nag ba ba ñuy dalee organiser bourde ba léegi alhamdulilah rabil alamina ñu bokk nag ànd kook waa marché bi yëpp waa 18 safar ñu ngi fii vraiment mu doon liggéey bu rafet ñu ànd kook ñoom jamonoy safar bi dañ ko ànd def safar boo xam ne tubaarakalla macha allah li ma la mën a wax daal Mouhamed mooy marché bi marché Ocass marché la boo xamante ne ñëpp dañoo ànd bokk ndey bokk baay di xàccandoo di doodandoo bokkul lépp wax dëgg yàlla tubaarakalla macha allah daal Samb. kon burdu bi yéen wa mars okas yéen ko organiser and ko commerçant yi ak tailleur yi ak cordonnier yi nek ci mars bi yëpp ñu ànd koog suñu mbokk yi nga xamante yalla dogo ñu bokk ci Serigne Touba mais addu ci kon ñoñu amna ci taxawa ci burdu bi yakarna bu non ko wax kon bu ko defé kon ya-, ñi ko yegal ñep diko ko wa waa àdduna burdu bi ni def ci mars okas yalla dogo na japp nan ko talata le 19 septembre waxtu takusan la ni commencé mu jule takusan la wasifa bu nu paré Abbas Diop moo def animation bi ba ci topp mooy conféré bi ki koy def mooy Mansour Diallo moom fi waaw ci waawoon topp tamit mooy jàng burdu mu jëlee timis daa jàng burdu bi daal di yëkkati jotaay bi ñu ñaan yàlla yàlla ñu ci yàlla ak jàmm yàlla ko yàlla mottali gannaaw Cheikh lay tàggatoo. waaw li may tàggatoo rek mooy di wax waa marché bi rek nañu xam ne yëf yi ñun ñëpp ñoo ko bokk na ngeen daan booloo di génn ñuy ñëw di teew ci bâche bi ren ñaan nañu vraiment. ngeen teel a génn ñu ñëw bokkandoo ko ñun ñëpp parce que ñun ñëpp benn lañ ni ma ko waxee rek marché bi day marché boo xamante ne bon dañoo bokk ndey bokk baay dañoo bokk ndey bokk baay suñuy yaay yaa ngi fi suñuy euh, mag yaa ngi fi suñuy rakk yaa ngi fi suñuy jarbaat yaa ngi fi suñuy doom yaa ngi fi ñuy ñaan daal bu bés boobaa mardi la 19 à 17h dañuy ñaan yàlla yàlla nañu koy fekkee jàmm ñëpp génn daal ñu ñëw teewandoo ci bâche bi ñu xàccandoo dóorandoo asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf bi ngi noonu ko dégg diggaat ko fan la fa woon ñawoon ñawoon ñal la burdu bi ñu daan def marché ocas talaata incha allahu rabbi mu doon 19 septembre fii ci buntu marché Ocass yàlla na ko yàlla mottali te yàlla yóbbuñu ci jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi gërëm waa Aynoumane TV di ñaanal yàlla seen télé bi yàlla na ko yàlla yokk yàlla ci yàlla fi jàmm ju ànd ak sutura ci daraja Seydina Muhammad wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. تواون فيها اليمن للمطيار خليل يا عيا وانزلا بالتواوني